barab bu nekk xam na la ña fa ne ñépp xam na la bul fas ni kenn réere na la ku la xamul alaku na mbàkke dangaa laxasu bay ba dëgg say dàgga yu rëy nu ñëw nga fab sàq yu rëy may nu sunuy xol sedd na yaa gën ci nit ay waajuram te gën ca fopp ak juram te gën ca waa kër ak këram terle nga ñépp tedd na yaa di sëriñ matu sëriñ yaa am njariñ maye njariñ yow daa la def lu am njariñ yaa mat ku dul yow manki na yaa di sëriñ matub sëriñ yaa am njariñ maye njariñ yow daa la def lu am njariñ yaa mat ku dul yow manki na kon ñaan rek lañu a xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkkoon ànd moom nu tabu ca ñoom ànd ak ñoom jëm fu ñu jëm mu jëme nu fu ñu fu ñu fu lañ jëme